Euh, sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey mbekk mbégte dellu soit seen biir émission euh, dañ kumpa tey nag comme ni ñu koy waxee am nañ ci gan gu spécial gan gu spécial goo xamee ne kenn du ko présenté ci réew mi kenn du ko présenté ci Afrique kenn du ko présenté mën nañ ne ci àdduna wërngël képp di kenn koo xamee ne doy na ci tudd turam kenn dootul laaj kooku mooy kan muy Ahmed Khalifa Niass di euh, nekk président FAP ancien ministre mën nañu wax ne l'ami des chefs d'État nekk it borom jafalaar Euh, ñoo ngi lay nuyu euh, sañ Ahmad Khalifa Niass. ñu ngi leen di fay. Euh, ñoo am mbégte ci nangul gi nga ñu nangul tey jotaay bii ñu séq ak yow. ñun am nañ mbégte moom. Mhm. umpul kenn ci réew mi ne yow yaay Ahmad Khalifa Niass waaye ku la yaay kan ak foo juddoo ci réew mi loo koy tontu. maa ngi juddoo Kaolack di doomi xalifa ñas bi ñëpp xam xale yi naan ko maam Khalifa muy màggi baay Niass suñu bokk benn baay di taawu El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xam ne daanaka mën nañu wax ne moo fi indi tariixa bi. ku dul moom rek ci moom nga ko jëlee wala ko nga ko jëlee ci moom la ko jëlee. Mm-hmm. Euh, kon bu ma la déggee mooy euh, yow euh, ginnaaw loolu nga ñu wax ci ñaari waajur yooyu dañuy dégg maam xalifa Niass. Mm. ndax mën nga ñu indi leeral tuuti ci maam xalifa waaw suma baay de moom mooy taaw El Hadj donc ci mag ñi taaw daanaka rakk lay doon ci baayam. Mm-hmm. sama baay nag ngi gën a àddina mille huit cent ci dëkk bu ñuy wax Sélig ci euh, sorewul Ndofane. Mhm. den ak Cariac foofu la juddoo ci 1878. muy Ndofane gi nekk. Euh, Ndofane Lagem. Mhm. Ndofane Lagem. Mhm. ko mais dafa wàcc tali tuuti. Euh, kan moo la yar ak fan la sa njàngum alxuraan doore. waaw dama ko jàngee wax sama yaay jàngalekatu alxuraan la woon moom moo njëkk jàngal alxuraan jàngalee ma ko wax maanaam boobu soxlaa ci ma soxlaa dara. comme tey mu soxla euh, kaas wala ndox walla dara au mu la jox ma nangam dafa lay wax laaye bi mu ne la waxee laaye bi mu ne nga xamee ci ci ne loola mooy nangam ji nga dem jëli ko indil ko bu ko de nga jàngee ca wax jàngaale ca alxuraan ba man bi ma toll ci daal alxuraan fekk na ma ma daa mokkal ba pare te yëguma ko. Euh, kon yow jaaroo ci neel baa daanaka de maanaam baag yooyu yëpp dama koo jàngale ci jàng wax ak jàng raam ak dox rek. kon bu ma la déggee njàngum gumba nga jàng. déedéet sama yaay moo ma doon jàngal da dafay jàngal nit ñi ma di ñi ma mag waaw. da toog ci daara moo ma jàngal ba ma moom sama yaay. ba te teguñu àll wa say say ah, say. Ah, ah, waaye dama bi ma tolloo ci war a def loolu yëpp fekk na ma mokkal ko xam nga booy xool léegi ci àddina bi am na ñuy ne ñuy tuddee kii surdoué. studio yi ñaari si dañuy nekk doomi ñaari professeur dañ si ko am 12 ans dugg université waaw waajur njàngam waajur dafa am doole. kon bu ma la déggee da ngaa bëgg wax du yeewoo nga woon. waaw. mën nañoo wax loolu. waaw mën nañoo jàpp loolu. waaw euh, nga xippee ci sa keppaaru waajur. Hmm. Euh, tey buñ nee xale donte këru daara nga jógee dañu ne ay yëngu-yëngoom yi xale di jaar ndax yow jot ngaa jaar ci yooyu am da ngaa nekkoon koo xamee ne ay waajuram gëme wuñ ko woon bokk. déet bëriwuloon parce que man sama yaay daf daan daf ma daan yeew sax daf daan jël sama tànk yeew ko ci mëlfa bi nga xam ne moom lay sol yeew ko pour ma bañ a sori parce que dafa ragaloon mm, euh, jikko yi nga xam ne bokkul ak aada yim xam pour ñu ànd ak suñu morom ñu sol ñu yeneen jikko wala suñu làmmiñ euh, bañ a fasaa bañ ndax suñu làmmiñ làmmiñu arab la man arab sama langue maternelle la moom laa nàmp kon daal dañ bu doon ci jamono ji ñu ne dañ la daan jéng waaw daawuñ ma jéng jéng ak yow bokkul jéng ku ñu ragal mu daw la mhm. sama yaay daf ma yeew rek ci buu kii bi nga xam ne mën naa ko teg sax dem mais pour que tout le temps ma nekk ak moom ci li mu nekk te mooy jàng ak jàngale ak julle julleeg woor ak euh, jàngal jàngal jàng alquran Euh, ci sa biir wax yaa ngi naan sama yaay loo dund loo xamee ne tey mën nga ñu ko fàttali ci sa keppaaru waajuru jigéen woowu. waaw xam nga sama baay daf fi teelu jóge mu fi jóge fukki at rek la rek la am diggante boobu moom moo def li ci ak man it a jóg ndax sama baay daf fee génn àdduna rek ma ñëw ne ko yaay xam naa ne amoo fi lu mooy sama baay moo la daan jox dépense waaye bés ni tey sa dépense dootu manqué. booba ñaata at nga am. fukki at ak ñaar. foo jëlee xaalis fukki ñaar ba mën a joxe dépense. damaa wa damaa teel a xam ni ñuy amee xaalis même sama baay ci boppam daal na tollu jamono dana danaa xam ne soxla na xaalis euh, ma topp tool ko ba mu am xaalis. mais topp tool nan doone ma da doon luxus dañ ñaas déedéet waxuma waxu luxus dama ne li ko dalal fa mi euh, am juróom hmm. naa dugalal sama xaalis bi ma gën gënee nekk xaleel ay yëf yoo xam ne ci baatin la ma donn ko wala ma judduwaale ko am ñu koy soxla te ñu koy soxla daf leen di jaral lu ne comme xale laan dañ may nax jox ma xaalis pour ma defal leen loola. loola lu mel nan. loola lu faj seen ajo aajo lu faj seen ajo bi ci gënoon rëy dama amoon ay mbëri làmb yu daan jógee Dakar gi surtout ñu dëkk caaro mën naa lu ci tudd ay seeni Mbay Njaay ay Bekaay 2 ay Mor Jenn yaa ngi ko wax euh, kii euh, Ray Sugar naa la wax Thérèse Ndiir boobu rek lañ ma a wax shérif bi de lu rek nga daan man leen ñu ñu ñu di ñu di ci am yu yéeme. nga leen koy defal ci bi ngay toll ci leen koy defal ñoom ñu barami xaalis di ma jox di ma jox man boo boo àndeek man soxlaatu nga beneen man bu ma la téyelee nga daan naa ko defal football kat yi nekk naa ndar defal naa ko waa ndar 1962 mars 62 defe naa la wala ñu am amandoo coupe ak championnat mosul am. xanaa danga daan njabar kon. déet loolu nu jabar tiraama Cheikh Tidiane mhm. euh, tey ndax dund nga tumuranke yow kon waaw lool ndax xam nga ko am fukki at sa baay jógee fi ngay jàng ñàng moom lu métti la am na fu koy décrire ci benn livre buy waaj génn suuf sax lekk naa ko suuf suuf nu ko nit di lekke waaw waaw boobu ñàkk pexe xuuf xiif amooloo lekk ab diir nga toog ji gis euh, bànko yooyu nga ñëw xool damm damm ci di ko def nii islam di ko di ko ci ra kii ba mu ba mu jeex yow dafay dem sax ba ba birigu banko bi boo ko fóonee da nga xam côté yi nga xam ne moo gën a neex da koy xam ndax tàmm ko kon demoon nga bay dundee ban wallaahi ndax lan ñàkk la am lan waaw ñàkk rek waaw ñàkk tolloon na foofu waaw booba ana yaay jam am na jamono joo xam ne maag yaay nekk mais yaay boobu daf ñu daan woorloo man ak sama rak Sidi Lamine ak suñu rakk bu jigéen Salma woorloo lu bokkut ak weeru koor waaw lu bokkul ak weeru koor jublu ci lan moo tax ma ñëmee koor ba léegi damay damay teeru weer ay 40 jours lu waraloon lool ak lu ci yaay jublu woon waaw mu ne pour ñu bañ euh, xaaraan dafa daal euh, njaam yëpp nekk sa jaamu biir mooy mooy mooy bi gën a bon amuloo loo lekk bul yelwaan bul ñaan bul xaaraan na nga woor ba ngoon diggante bi léeg-léeg ñu am boobu ñaari fifteen ñaari fifteen bi benn fifteen bi dañ ci mën a jënd euh, gerte caaf wala gerte rek gerte xaaraan beneen bi nag ciy jënd mburu ak tuuti warga kaaru kaas tuuti suukar nga ñëw yëy gerte gi boole koog mburu mi naan sa ataaya julli tëdd nelaw tolloon nga foofu tolloon ngeen foofu laay wax sax ndax yaa ngi ma yeewu la woon Sidi Lamine ak Salma Sarak waaw tolloon ngeen ci ñàkk ba mën a waaw ba jëndee ko koor wallaahi wallaahi euh, booba boo fàttali ko loolu lan lay def ci yow damay xam ne yàlla mooy nga xam ne lu ko neex def rek fu fu la jaarale moom rek mu la fa mën a jële booba Sidi ñaata at la am. baay bi fi jógee Sidi juróom-ñetti at ndax man mage ko juróom juróomi at. nga nekk taaw maa ngi tudd waaw maay ma yor ko yor sama yaay yor suñu rak ak sama maam bu jigéen mi wax ne mooy sama yaay yaay. tey jàng kese. waaw jàng rek. kon bi ngay jàng ci nga yor njaboot. waaw man daal kër bu sama baay jógee kër laa tàmbalee joxe dépense. Euh, noo dundee ñu jekki-jekki rek ndax mën nga ñu ñëwal ñun tout tànk yi bés booba fu mu la fekk. waaw sama baay mi ngi génn àddina benn euh, tàkkusaani suuf bésu dimanche mu nekkoon vingt neuf février mille neuf cent cinquante neuf man nag damaa demoon ci làmb ji ci wetu raay bi waaw bi làmb ji tànnoon ci tàkkusaan ji ma ñëw yegg si ci kër gi fekk boobu mi ngi waaj tàkkusaan bi mu mujj euh, julli boobu moom mënuloon a mënu mënutuloon a jóg toog wala mu def benn gest waaye suñu benn yaay bu ñuy wax yaay faama mu yaayu xalifa alaaji bi fi jógee euh, imaam arabi moom moo euh, bu xoolee dina xam ni mu ci jublu mu xool mu ne yéen ñi ne ci kanam topp leen dafa bëgg dafay waaju julli ñu kii moom soxna si mu jël xeer wi di ko ko tiimal bu tiimale ba pare mu jullee bët yi maanaam bët yi la yëkkati di ci rukkoo di ci sujjóot wax amatul beneen cër bu mënoon bu mënoon jóg ci boobu jamono waaw ñu toog moom ba mu génn àddina suñu kanam man ci ñim génne suñu àddina àddina suñu kanam ci laa bokk. nga def nan jooy nga. déedéet jooy ma. jooyoo ndax xamoo ci woon dara kon. xamoon naa ci dara mais jooyu ma parce que ñun suñu éducation ak dee nekkul comme olof. làmb ja laa ne woon. da ngaa bëri woon da ngaa yóbbuwoon ñun Chérif lañ ndax sama yaay dama mos a nettali bu mbokk bokkal ndey ak baay ndax bi mu fi ñëw ndeyam ak baayam la àndal ak ñaari rakkam bu mu bokkal ndey kenn ka nag feebaroon ba mu feebaree euh, sama baay ñëw doon ko seet si. Mm-hmm. avant mu tëdd dem ci fajar ji mu jóge ci jàkka ñëw di ko seet fekk mi euh, fekk mi ngi tëdd ñi ngi ko muur. naka malaat bi ñu ne ko génn àddina fekk ñoom ñi ngi attaaya mm-hmm. maam ni mu tëddee nii sama ñaari sama ñaari maam ku góor ku jigéen ak sama nijaay ak sama yaay ñi ngi wër néew bi di ataaya euh, sama baay ne leen ataaya tam dee ñu ne ko waaw yàlla lim dogal ci kuy dund mhm. mooy ne nan ataaya na lekk na naan kii dee yooyu yëpp teggeeku na ko ñun nag bu lekkee ba pare ñu defar ko jébbal ko boromam mu ne bu doon olof de yuux yi ñoo ma koy wax. ci loolu la ñuy ñëw nag ak yow. Hmm. Euh, ci benn euh, image boo xamee ne dañ koy ànd xoolandoo ko delseeg yow ci biir émission dañ kumpa weeru koor mosu dog weeru koor kadalika ajna ajna ajati ajati umra umra umrati umrati ajal ajal umra umral te gërëmuñ ko ndax su doon euh, su doon daf koo bàyyee boppam mu ne ndax su fekkoon daf koo bàyyee boppam mu ne kon yaayam dem na ñaari at ginnaaw Euh, ñuy def muy loo xamee ne lu jógoon dal sa kaw la. ndëgg la. Euh, ñu lay dellu di la jaal. jërëjëf maa ngi nangu njaal leen ko delloo. loo yëg. waaw li képp koo xam ne danga ngaa ànd ak euh, jigéen muy sa soxna am ñeent fukki at ak juróom jur ay doom yu góor yu jigéen yu mag. ngeen dem ba ji jëmbi jamono euh, mu dem bàyyi la fi bu ko defee yow ñeent fukki at juróom yooyu yëpp day dellu ci yow ci benn saa ngay jaabante ci biir saa yooyu yu ca neex ak yu ca naqareeg lu ca ne di ko wëlbati sam xel dëgg la nag euh, waajur ak soxna soo xam ne koo bëgg jël ko mu nekk ak yow doo ca mat seede mais danaa wax rek ci ñi lay seetaan mu wax leen ci ñoom lenn mës nañu toog nekk ci suñu hôtel muy dugg si ci néeg bi fekk booy bi defar néeg bi di sàcc ci biir saagam mu mu en pour waa ji bañ koo gis ba ba waa ji sàcc ba pare ba dem mu door ma ne daal am naa kersa ci di ko toroxal ndax moo ko sàcc bi euh, la bay wàññi ci moom ci moom man mënumaa toroxal nit ngir alal. Mm-hmm. muy suturaal ko. muy kuy suturaal sàccam. sàcc bi sàcc ci bagaasam ci saagam ci biir hôtelam loolu xam nga yeneen nit bari na kersa mais yegguñu foofu quand mm-hmm. euh, moom mu tuddoon. Khady Sarr. Euh, soxna Khady Sarr moomu yëkkati na ay kàddu. laataa ñaari fan mm. muy génn àdduna mm. def ay seede yoo xamee ne ci sa jëmm ji la ko def mm. waaye booba jàppoon naa ne xalaatu ko ñun ñim doon waxaalit xalaatuñ ko lii la waxoon ci yow man maay Adja man maay aawam lu tax loolu daaw ma feeñ parce que boobu maa ngi yar sama njaboot aw ma jot dem télé ki yëkkati yi kàddu mu mel na yow la doon waxal bett na la ah, ma déedéet bett moom demam bettu la waaw bett na ma bettu ma lu tax bett na ma bettu ma waaw hmm. ah, bett na ndax euh, bis euh, bi yaa ngi ko jël talaata ñu ci ñu teg ci àllarba alxames àjjuma la génn àddina ci guddi te bi mu laata génn àddina jour boobu bésu adara juma la mboolem ñu ñëw ci adara juma bi oo na leen teraanga yu leen daan jox ay sukkaru ndogu yu mu leen di dimbalee way néew ji daal même ñi ci ñëwul oote na euh, yóbbante leen ne nañ leen yóbbul loolu donc dara dalu ko euh, parce que euh, feebaram bi métti woon na bañ hospitalisé woon ko fii ba ay doomam mi nekkoon bitim réew sax bëggoon a dagg seen jàng pour ñëw pour tiim ko may leen bu dee tiim ko gis deem la jotagul euh, amagul. des na ci kanam daal. waaw euh, tey kooku gërëm nga kon. waaw bu baax. kon tey làq na sa ngërëm. waaw amul benn sikk. Euh, ñu génn ci loolu delsi ak yow nag. sa njëlbeen Ndakaaru. Ndakaaru maa ngi fi njëkk a ñëw. 26 septembre 58 ma ànd ak sama baay mu doon teeru ñu doon teeru si général de Gaulle dañu ne mboolem si xalifa yi nañ ñëw teeru général de Gaulle te fekk daan na bind sama baay di ko ñaanloo ci guerre bi jamono ji mu nekkee Londres daan ko yónnee ay ndaw yu làqatu di ñëw yu jógee Gambie. 1962 am naa fi ay weer avant ma di fi jóge di dem jaa ngi Tunisie waaye nag bi ma àndeek soxna si. Euh, ñu ngi ànd le 8 mars 1975 ci Tatooro dëkk Dakar. fan ci Dakar faas gi am am dëkkoon nga feneen. maa ngi dëkkoon euh, ci wetu Zawe El ci ville. da nga fa amoon këram da ngaa woon. am na foofu ñuy wax kii euh, auberge di di di Cap ci ri boo traversé ma. la fa nga nekkoon. fa laa nekkoon luye fa appartement meublé ci jooju jamono nekk fa ak moom mii. fekk nag lu jiitu loolu dama doon établir sama base nekk Caire may nekk ci biir ara réew arab yi di liggéey ak société pétrole yi ak yu mel noonu moom nag bi ma euh, gannaaw gi ñu yóbbu ma Gabon ma nekk fa représentant ma jigi ma nekk directeur bureau de d'ingénierie waaw foofu ci Gabon bi may sëy ak moom Gabon laa jógee ñëw fii ci laa daje moom ànd ak moom après nag ma démissionné ci euh, bureau yi boobu nga xam ne ñun ñoo defar chemin de feru Gabon bi jógee Libreville. yow mi waaw bureau ba ma yoroon. Mhm. ñoo doon def études yi. kon ñàgg moom ah, njëlbeen ay ay ingénieur lañ. ñàgg gi muy wax njëlbeen gu métti googu loolu dafa yóbbu. déedéet loolu après loolu ñàgg ñàgg euh, kooku taxu koo yàgg euh, ñàgg buñ koy wax mil mille neuf cent quatre-vingt-trois lañ fa dem. ñu jekki-jekki eh, comme ni nga ko waxee nga nekk ñàgg kon loo doon liggéey ndakaaru bi nga nekkee ñàgg xanaa xëy rek di xaar déedéet bi nga xamee ne nag ñib si naa ba eh, ñib naa ba ñu dem ñàgg yàlla def boobu jamono nag eh, président Abdou Diouf yónnee ci man ma fekk naa nga jotewoon ak Senghor ba demoon libi def nii jaar nii man yooyu sama yoon nekku ci dama bëgg nga dimbali ma ñu liggéey Jean Collin ma nekkoon loxoom mais li nga joteeg Senghor moom sama góor gi wax dëgg yàlla kum doonoon it da nga joteeg moom bu dee noonu ñu ko waxee noonu la amee waaw ca lafa xew waaw yaa ko def mooy lan ñu ne yaa taaloon drapeau bi drapeau bi jamono yi Abdou Diouf la fii la Dakar la euh, fi place de l'Indépendance yow nga taal drapeau bi waaw xanaa xamoo luy institution xam naa ko jàngoo ko naa ko ak responsabilité yi si yëpp nga jël drapeau di ko taal waaw déet xam nga julit moom man a jullit su fekkee ne jàpp na ne di war na ko def ragal day ne ko fële xam nga benn la di dee am na foo xam ne jullit boo fa nekkee bu boo waree jaay sa bakkan jaayee rek bu dee yàlla jël na ko jël na ko bu ko jëlul tax nga dee xanaa da ngay woote jiyaat déedéet waaye jiyaat yi dafa bari ay façon waaye drapeau réew mi waaw drapeau François bu France ba nga jël lakk. bu France pas réew mi drapeau France laa taal. waroo koo taal xanaa nangul nga ma loolu. Ah, bu tey doon def bu bu ma ne ma ko waroon taal du ko taal. mais bu tey doonoon da nga ko ko defaat. waaw waaw. amoo ci rëccu. déedéet. taal drapeau réewum jàmbur nga ne amoo ci rëccu. déedéet réewum jàmbur réew moo xam ne mi ngi nangu sama réew bu taal ko imposé ñu ñu imposé armée ma ngi fi xaalis ma ngi fi làng ma ngi fi. suñu lépp ci loxoom la nekk. kon nag li ñuy wax ci buzz kon yow yàgg nga bëgg buzz de lu toll ne drapeau nga ñëw taal ko. bëgg buzz foofu du question bëgg. ah drapeau. dama ne waaw drapeau France booba taal naa ko mu nekk wàll sama message ne France ba war bi mu war nañu wàcc. moom nga ci jublu woon. waaw message ba jàlloon na ci jooju jamono loolu mais loolu kii la loolu. mi ngi nekkoon 1985 mai 1985. léegi Abdou Diouf jubóog yow woo la nga ñëw nekk ci wetam. ma nekk ci wetam. fa xanaa sa jaxasoog chef d'état yi commencé. jiitoon na fekkoon na ma xamante ak ay chef ndax Gabon ga ma jógee woon déjà booba euh, man ci ñi taxaw Bongo ba mu tuub ci laa bokk ci ñi taxawu Bokassa ba mu tuub laa bokk donc man euh, taxaw naa Kédougou it ba ne tuub na. donc man damaa ja xasoon ak chef de l'État lu jiitu waaye nag bi mu bi muy liggéey moom loolu yokk na moom sax ñoom dañ lay o parce que am nga ay relation ñu bëgg cee profiter du ñoom ñoo lay créer relation mais booba xanaa moom profession marabu rek la woon kan si yow jaww ji jamono profession marabu profession professeur professeur d'arabe la te itam dama am CV ndax man du ma ingénieur waaye fi ma nekkoon wéyalifu naa juróom-ñaar fukki ingénieur ba ma si ñëwul dara du dox Eh, eh, booba ingénieur yi ku a ku a dàq la. booba ñaata at nga am. ci kañ. ci jooju jamono. ban at. bi ngay wax eh, bi la Abdou Diouf di woolu. Euh, xam nga maa ngi judd 1946. Mhm. Euh, bi may oo 1984 la. Mhm. Euh, ñu déglu élément bi jàpp naa ne bu doon jamono ji tey. mën nañ ne at yooyu jege na ko. yaayam la mu tuddee muy maam Aminatu Aydara donc mu tuddee ma ko donc man sama tur Aminatu Niass la. mais mu may wax yëm mi yëm mi mooy yaay ci naar sama yaay des fois sax mu ne yëm mooy maama moo am donc tur boobu dem na ba law ba ñu bari dañuy fàtte nan laa tudd xëy na donc bët bëggeel boobu mu amoon ci yaayam xëy na loolu laa koy fàttali et que tamit ku bari bëri mànde la ci njabootam ju jigéen ndax heure bu ñu waxee dafa naan góor mën na fanaan ci mbedd walla góor mën na mën na dékku yenn souffrance yi mais loolu jigéen mënu ko donc yéen sama doom yu jigéen yi tout le temps yéen laay jiital avant góor ñi. benn jour nee naa ko mais papa yow sonal nga ñu chaque jour demal jàngi demal jàngi jàngi nag day day day am àpp lan moo tax ngay insister pour à ce que ñu jàng euh, mu jox ma question boo xam ne man question boobu depuis loolu dafa ma yéem. tey bu ma jëlee xam-xam. di fay ci seen jàng di ci frais di ci kii tey bu ma fi nekkule mooy mën ngeen loolu bàyyee naa leen un héritage à vie loo xam ne li nekk seen biir bopp yi kenn mënatu ko génnee seen biir bopp xanaa yàlla et sama vraiment ému j'ai vu ci d'une autre manière du sama doom naa leen jox tey parce que yàlla sama digganteek yàlla laay dox mais même bu ma demee mooy bàyyeel naa leen avec un bagage boo xamante ne kenn mënatu ko nangu ci lépp lu mu am amalu ko pour boppam pour nit ñi la ko amal et c'est quelque chose boo xam ne sama toujours ému man bi sama yaay génnee àdduna c'est vrai man may taawam bu jigéen bon am naa ñett yeneen ñaari frère ak benn petite sœur euh, bon mu doon loo xamante ni c'est pas évident mais comme li ñuy wax rek moom yàlla bu soxlaa ñëpp ñàkk mais moom laa njëkk a xalaat bi loolu amee parce que dama ko yërëm j'ai que kii il a perdu sa meilleure amie parce que loolu la mës a wax ku ko mës a laaj ne ko amet kan mooy sa xarit kan mooy sa ami amie danaan man Khady mooy sama meilleure ami parce que ça fait quarante cinq ans ñuy ànd et dama naan gis sax bu amaan soxna wala dara soxnaam su ndaw ñu am problème sama yaay mooy ñëw di di di di intercéder di waxtaan ak moom pour mu pour mu muñ pour mu lii wala sama papa bu amee jabar bëgg ko bàyyi mu dem sama yaay da ko ne du mu fi jóge du fi jóge tey bu fi naree jóge ñun ñaari ñooy ànd dem. ban commentaire ngay def. waaw gëwuma ne na benn commentaire bu social mais lu naturel la rek. lu ñuy wax yëpp lu normal la. lu jógee ci xol ci xol lay dal. waaw. Euh, ñu ñëw ak yow. dinañu génn nag fi nekkoon. Hmm. Euh, maanaam. dugg tuuti nag ak yow sa diggante ak cheikh al islam Baye Niass bu ñu ci jógee ndax dégg nañu li ëpp ci ay tukkeem daa nga ànd ak moom loo ñu mën a fàttali ci Baye Niass yow sa diggante waaw xam nga mook sama baay ñoo bokk benn baay hmm. sama baay màggee na ko ñaar fukki at ak benn ndax xam nga la ne sama baay mu ngi juddu bàyyi ngi gane àddina cent nga xam ne di diggante bi at yu bari la. 21 naa ba ci vingt ba jege 22 ans man nag dama ko gis rek yàlla bëggloo ma ko mais nag sama baay ñi mbokkal baay bari nañu parce que en tout motoon nañu 17 ñoom ñu dund gannaaw seen baay mm-hmm. mais baay. dafa nekk euh, nit ko exceptionnel bu bu boolu la ne euh, bàyyi du nit gëmal ne dëgg la nit ñëpp nit lañ mais bàyyi moom du nit ci lenn maanaam jëmmam bàyyi tey bu ñëwoon ci biir dix mille personnes dafay mel ni moom rek moo fa nekk dafa am magnétisme bu lay xëcc ci moom mënoo ko gis nii ànd ak sa sago comme ni nga may gisee ni ma la gisee ne noonu bàyyi boo ko gisee rek magnétisme jàpp la moo tax photo yi mënuñ koo génne bu ñuy photo du ko jàpp c'est pas que du génne euh, mais jëmm ji euh, du génne magnétisme boobu baatam buy wax bokkul ak ñi ni ñuy waxee ñun doon nañu nekk bàyyi di jàng ci daara ji booba rajo amul mais bu bu ñu bu bàyyi dee wax di xutba da ngay toog ay distance yu sori di ko dégg te tey bi rajo ay amee distance su baatu baay moo gën a sori looy déggi mu nekk nag benn nit boo xam ne dafa mel dafa wàcce ci asamaan si meloom coloom otoom waxinam lekkinam definam amu ci lenn loo xam ne lu niroo ak lu ñii di def la. te nga jege lool muy sama baay moo ko sama baay ñu benn baay. waaw mais jege gi moo ñu jaaxal waaw jege gi jege gi nit nga jege sa baay sa normal léegi nag sama baay jógee fi bàyyee ma ko ndax ku dee say rak ñoo responsable sa njaboot. da laa yërëmoon kon. ah daf maa war a yërëm ndax man may man la ko magam bàyyee muy njirim du dëgg mais pour wax la rek ne bàyyi loolu du ji sunu doom ak bàyyi. Mhm. bàyyi dem na Chine Chouin laay mi nga xam ne mooy booba premier ministre di chef de gouvernement yore exécutif Chine moo ko teeru ji ba aéroport ba tenir na sax pour jël dara ci bagage yi bàyyi téye ko te loolu sax protocole nangu président wu Chine xam kooku du jullit li ji ci bàyyi te booba chef d'état africain yi dañuy toog léegi un an di ñaan audience premier ministre Chine pour mu recevoir leen Chine da të te bu ñu demee ci fi ñu toog eh, benn cérémonie quinze minutes lañ di recevoir mooy fi ñu signé accord yi premier ministre Sine amul jot te loolu la dafa Khrouchtchev bi nga xam ne moo yoroon Union soviétique Russie plus réew yi bokkoon Union soviétique ak kanu buuru kanu waaw buuru kanu ba buuru kanu la tàmbalee maanaam fu mu demee rek ba mu demee kanu nit ñi avion bi mënta dal avion bi dafa mujj dem Kaduna dal fa bañ ne nit ñi dem nañ avion bi door door a wàcc. te yow yaa nga ca woon. ba mu wax ne waa ba mu ne xataa mu ne barhaamu wama barhaamu xataa fi xubbihi wahaamu mu ne cey barhaam kan mooy barhaam ba nga xam ne ñoom mbëggeelam dugg na seen xol te ñoo ñaa ay awsa lañ maanaam bu jàkkaarloog ñoom xamul lu leen di wax déggul seen làkk dégguñ bosom ñi dégg arab foofu bariwul mais bàyyi daal doy na kéem taamaat yàlla eh, ñu ne faydu bi Mm-hmm. lan mooy faydu faydu day mooy euh, bu dee français ñu ngi koy tuddee émanation yow da jàpp ne xam nga yàlla hmm, yàlla de moom xam na ma loo bëgg a wax mooy li nga dégg yàlla xam na la waaw euh, yow wax yi ngay wax hmm. da nga sos diina ju bees am li ngay wax ci xam-xam nga ko teg. ah diine ju bees kay yàlla tere man soxla ma lu lislaam. am naa ko naa ko ah. wax ji moo jaaxal nit ñi. wax ji moo jaaxal nit mooy lan kaddu goo yëkkati mu jur fenk ci boroomi xam-xam yi. déedéet loolu doonte loolu lu lislaam rafetlu déedéet loolu amoon na ci Baye Niass amoon na ci Serigne amoon na Cheikh Tidiane amoon na ci ñeneen waxtu woo xamee ne nit ki dafa. dafa ñëw di yeesal li ñi xamoon ndax yonent bi nee na siècle bu ne yàlla dana def nit koo xam ne day yeesal li fi nekkoon. kon da bëgg wax ne yow yàlla dafay wàcce pour ngay yeesal. waxuma wàcce de waxuma wàcce yàlla de waxuma wàcce nit dan yàlla dana def nit boo xam ne dafay yeesal li fi nekkoon ñu laaj ko ne ndax day indi xam-xam bu bees mu ne déedéet waaye dafay indi déggin wu bees. kon loolu nga bëgg def sa bopp yow. kon boobu ci man defuma sama bopp lenn dama wax ne. Mhm. fii ci senegal diine ji buñ leen ko tegalee liñ leen ci wax ak li am li ci ëpp du benn senegal xam mu diine lislaam daf fi manqué lool dontale foog nañ ne ñoo ko fi ëpple mais senegal ak sunu mag ñi fi nekk li ñu jàngal bu ñu doyul lu ñu doy waaw sëriñ bi muy mag ñi muy rakk yi muy doom yi muy sët yi dama ne xam-xam daf fee manqué yi te yaay ki ko yor am naa am na am naa ci dara de waaye du yow dong. waaw am naa ci dara am naa ci lu am solo te di ko wax da koy wax am na ñoo xam ne waxuñ ko am na ñoo ne seen daar lañ koy wax am na ñoo xam ne seen lañ koy wax ñu bëri ñemewuñoo wax ci média bi parce que dañuy ragal ñu vilipender leen wala ñu ñàkke leen ay teggin wala yu mel noonu mais loolu yonent bi def na ko avant man euh, mën naa ko ceeroy loolu mais li ëpp ci sa waxtaan danañu koy dégg. mais boo ko yëkkatee rek xale yi danañu daw dugg ca néeg ba seeni waajur rek toog ci saal bi ndax li ci ëpp si sa waxtaan waxtaanu sexe da cee bokk. est-ce que xam nga ne alxuraan boo ci dindee euh, lu ci nekk sexe rek alxuraan daanaka day jeex. waaye loolu rek taxu koo jóg. la ah, ciy njàngale ak li ciy njëriñ. dama ne li ëpp ci alxuraan. waxu sexe ak li ci yoon wu mën a. dama ne nit ci mu xam yàlla. li ci ëpp li ci ëpp waxu sexe la. alxuraan li ci ëpp waxu sexe la. mais jàpp na mën nga ñoo jàngal leneen lu bokkut ak loola. am yow loola lañ mën a man li ci alxuraan. Hmm. du mu ci bàyyi lenn. waaye sexe dafa nekk benn question centrale boo xam ne lépp ci la aju ni bu amuloon euh, dund ak dee du am xam nga parce que kenn mënta dee te juddoo te kenn du juddoo ci gémmiñ kenn du juddoo ci bët kenn du nee cëpp ci ci ci nopp. Eh, ñu gis ne bu weeru koor jotee rek. Hmm. daanaka mën nañ ne télé boo taal gis la ci. mission la booy véhiculer lu la yëngal ak lu la tax di wax. xam nga yow danga maa oo. Mhm. ku dul yow daf maa oo man mosuma dem ci benn télé. bal sax danañ may oo ma bañ a dem fii ñu toog maa ngi liste d'attente ay télé ak ay site web yoo xam ne ñu ngi bëgg ma wax ak ñoom man utiwuma leen utiwuma su ma leen a uti xaw ma leen xaw seen numéro téléphone ñoom ñoom mooy soxla di ma oo. pour ma leeral leen parce que mais boo seetloo. lu ma mës a wax. ña ko bañoon ca déwén sa ñoom ñëpp nangu nañ ko ba ne banalité la commencé ko ci moo waxee sëyu SMS. mais mais mais euh, takk sëy ci SMS moom dafa terre teer ndax mënoo feenee ne ma mën a ñëw sa kër wala ma mën laa yónnee oto nga ñëw sama kër takkal ma sëy nga toog ca kër ga yorub téléphone di ma takkalub sëy. yow yow yow mii Diop. Mm-hmm. yow yaa mën a wax loolu. takk sëy. waaw damay laaj te a jot ci yow. est-ce que ngaa jënd oto ci SMS wala mënoo ko def. jënd oto ci SMS. Ah. sama xel doyuma. ah kay ah, déet ah am na nag yow léegi boo ubbee en ligne xanaa yow da ngaa nekk en retard da ngay gis oto bu ñu affiché borom da koy jaay. nga ne damaa bëgg jënd daal di ko yónnee SMS imam mu yónnee la vidéo bi wala mu indi bi gaaral nga xool bu ngeen d'accord nga fay. loola nga méngale ak l'islam takkub sëy. dama ne takkub sëy contrat rek la contrat yëppay jaar léegi par SMS. mais contrat gënt rey takkub dama ne takkub sëy contrat rek la ñu jàngal ci téere mooy contrat la. Euh, ñu déglu ñenn ñi nga xam ne ñoom it wax nañ seen xalaat par rapport ak sa taxawaay ci réew mi. nga moom bu taxawee mu ni flirté ak sa ak sa jabar bëccëgu weeru koor yàqul koor dëgg la téere charia wax nañ ko yàqul koor mais tam am na loo xam ne l'islam da daganal waaye da daw li dagan ngir li xaram la cay juddoo loolu moo tax mais ku ne xam na ne li mu wax noonu yàqul koor de dañ la araamal li commencé ci jumbax bi ba ci bettu oom yi dañ la ko araamal. école yi ñuy ku nekk ak nu muy jàngee nu muy gisee nu muy gisee waaw mais lu gënoon rafet moo ni que ñu xam ne am na yi nga xamante ne day ngëm-ngëm boo xamante ne doomu aaduma am na fo xam-xamam toll da am foo xam te niveau boo xam te da ngay wax ak moom du fépp la ñuy waxee lépp. feeg mu ne xam nga euh, boo nekkee weeru koor mën nga nekkee sa jabar ji flirter moom laa je suis d'accord parce que. weeru koor moom dafa am maanaam lu ñu si diggee ak lu ñu si tere. des fois internet bi ñu di ko posté mais mois de ramadan moom même jëkkër rek jabar war na nañoo mën a éviter certains faits yi parce que benn mois la rek. koo xam ne nii bés boo waxee rek mu indi benn polémique ci Sénégal pour man ko am xam-xam la. fa diine xamante ni dafa yëkkati kàddu di wax. nga xamante ni euh, euh, nit ñi ñu ngi koy déglu je pense war na mën a wàcce si niveau nit ñi. muy wax ak niveau nit ñi mun a comprendre. xam-xam moom dafa nekk loo xam ne nii euh, dafa bëri ay ay dimension quoi c'est-à-dire c'est multidimensionnel quoi am na noo koy waxee kii déggee ko nee am na ni nga koy waxee keneen déggee ko ne mais lu ma jàpp euh, c'est un savant. man du ma wedd lu muy wax comme du ma di nga tamit lu muy wax. laaj nga ma commencé war a wax muy Ahmed xalifa parce que borom xam-xam la quoi man moom vraiment dama daf ma neex trop murid laa mais dama koo bëgg barke Mouhamed parce que ay waxam dafa am solo. gaa yi ngay gis yëpp ma leen moo leen ëpp xam-xam te lu leer lay teg. moom patrimoine la bu toogee mu xam yu muy wax aussi daal loolu daal lu si am solo la parce que man daal gis naa ay émission man daal am naa daal yoo xamante ne daal maa ngi koy dégg mu koy wax yoo xamante ne man daal neexuma. lu mu wax rek diine la xanaa ñun suñu xam-xam moo gàtt rek waaye lépp lu mu wax dëgg la waaw. loolu rafetlu naa ko bu baax a baax man ku sant ñas lu mu wax dëgg laa koy def waaw. mu ngi wax ci diine mu ngi yee nit ñi ci diine nit ku baax la nit ku am euh, taalibe la koo xamante ne am na lislaam la. li ma koy wax mooy mu fi mu teg tànkam foofu la mu bañ ko wàcc parce que borom xam-xam la waaw loolu la quoi mu gën a jàpp ci diine ji rek xam nga te di ko waat bu baax a baax magam ji fi jógee maa ngi ko ciy jaale bu baax a baax di rafet lu xam-xamam loolu daal laa amoon si la ma koy laaj. ban xalaat nga ci xam nga yàlla ci moom dafa ci alxuraan yàlla ruusul dara yàlla moo wax inna allah la yastahi yàlla rusul dara alxuraan langage cru lay utiliser. mais amul fu ne wadd leen seen kàddu ci alxuraan. déedéet donte sama njàng soriwul. déedéet dama yàlla li wax inna allaha la yastahi min al xaqi yàlla amul kersa ci dëkk am na ñaari inna allaha yastahi yàlla amul kersa yàlla rusul dara kon nag ñun xanaa duñ gën a yar yàlla yaru yàlla ba yar yàlla ñun ñoo war a yar yàlla wala yàlla moo ñu war a yar. yàlla ñu war a yar. ok yonent bi. daf ñoo may boppam di wax nu mu daan jëflantee ak soxnaam bu soxna si dem amee baax wala bu nekkee ba ci gu weeru koor pour moom la wala pour ñun la yonent bu ko neexoon mu ne euh, vie privée bu ci wax dara bu ci keneen li te kon duñ ci xam dara duñ ko ut a xam. waaye duñ moom te duñ doon. duñ ko waaye euh, moom mooy suñu exemple. mais duñ moom ndax la mën ak fam tollu ñun àggunu fa. yow Diop yow itam ngir yàlla bul daanu ci niw boobu nag. ñun waxuñu ne ñooy moom kon kay buñ julli comme ñun na muy jullee ñun mënuñ ko na muy teewloo mënuñ ko kon buñ woor. kay dama ne yàlla def ñu ne laqad kaanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun yonent bi mooy royukaay bi gën rafet dee leen ko roy yonent bi nu mu daan digaaleeg soxnaam mu may soxnaam mu di ko wax. pour ñun ñu jot ci lii ma lay wax du question ànd naa ci ànduma ci xam nga lan mooy question centrale bi yonent bi daan na ko def wala déet daan na ko def ëpp na téeméeri addis amul kenn ku jàng addis ta xamuloo ko waaye nangu nga ne duñ moom dama ne la euh, bul wàccee ñii wax ne dañoo war a wodd lu yàlla wax li ñu wax en réalité mooy yàlla woo xam dafa ñaaw tey waxi yàlla du ñaaw waxu yonent bi du ñaaw peddi wuñ loolu waaye dama bëgg nga nangu it ne du ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wu ñu fa ndax dégg nañ ci wax ji nga leeral ci jamono jii ne euh, koor mënees na ci sax mais la top bu la ca leneen dagay nooy def xam nga ñu ngi ko wax ñu dee koy dañu ne diine terewu waaw yow loolu nga sa koor yàquwul waaw pour ñu xam ne ko mais bu la ca leneen fekkee da nga weer ñaari weer déedéet déedéet bu la bu la ndog dalee nag dara du la ca fekk. waaw yow kay dogalal wala nga laaj ma. laaj naa la. kay yëf ñaari kaa la. Mhm. yow fóon bi moom am nga ci droit waaye boo fóonee yem ci fóon bi y' a aucun problème sa droit nga utiliser. est-ce que mën nga caa yem. waaye de du noonu nag itam jëpp defal naa su fekkee nag ne ba ngay fóon da ngaa surux maanaam da ngaa jàll dem foo bëgguloon a dem. Mhm. ko utu woon loolu. Mhm. waawaa da ngay mott fay benn fan amma nag su fekkee ne yaa fekk sa jabar mu woor nga ñëw mu toog saa nga kaay mu ñëw nga tëral ci bi def ko ko kooku ba ngay foofu ngay fay ñaari weer mais yow liñ mayee rek nga doon wut ba la ci luñ mayewul dabee dangaa juubu dama lay jox exemple yow cuisinier nga heure bi waañ wi yaa ngi ci euh, lekk yi di gilli ay mayonnaise ak ay purée ak ay pomme de terre mais mën ngaa juum lekk. mais loolu da dégg est-ce que loolu war naa tax ñu ne la yow dugg waañ weeru koor araam na la. waaye boo juumee lekk moom moom moom. waaw oh, déedéet boo juumee juum lekk ak dugg weer dugg waañ du benn de. Eh, dama ne dama ne. Hmm? dugg waañ ñam wi xeeñ la taxul dugg waañ araam la. waaw dugg waañ ñam wi xeeñ la ba nga juubu ci taxul dugg waañ araam la. dugg waañ c' est une ca waa la ca waañoo c' est une maanaam soxna si nga foon ko c' est une chose leneen daal la ca c' est une autre chose. ci ñiy mi. sëriñ bi foo yëkkale saw yat rek sëriñ bi bi. am yow da ngaa na ne yow. bi. addina mhm. euh, lu ne rek yàlla dafa ne daf koo bind yemalew ko bi xadar. Mhm. c' est à dire que oto rek oto yow. chauffeur bi di dawal quarante ans yor permis poids léger bu yéegee ci camion bi dawal ko rek dañ koy war a jàpp tëj ko fourrière oto parce que amul pois lourd poids léger la am ndéem oto dawal oto moo am pois lourd am poids léger xam-xam bi dafa am poids lourd am poids léger. yow boo ci doon yow bu luur bi nga yor am léger man. Hmm. fu ma yàlla def rek. waaye li ma xam xam naa daal man xàmmee naa borom euh, ki yor poids léger moom xàmmee naa ko naa euh, ñu xëy dégg docteur Ahmad Khalifa Niass. bu docteur moom foo ko jëlee ak da ngaa soutenir dégg naa sax ci biir wax nga ne soutenir oo nekkub docteur docteur ci la. waaw docteur honoris causa euh, bëri na doctorat ñetti façon lañ koy amee benn bi da ngay koy soutenir. benn bi université yi dañuy jël say say œuvre say mbind sa jaar-jaar mhm. même sa jaar-jaar jël ko apprécier ko ne mën nañ la jox doctorat ci kaw évaluer sa say liggéey mhm. loolu sax am na université yu ci liggéey pour man mhm. benn bi mooy ñu jox la docteur honoris causa boo déggee honoris causa reste honorifique waaye ñi am docteur ñi am doctorat ba pare rek lañu ñu indil honoris causa tegal leen ko ca mu ne comme une cerise sur le gato man nag ça a été une exception pour que université académie yëkkati jox ma doctorat te nul ne dafa xaar ba ma ba ma ma soutenir ba pare kooku c'est une exception mhm. ñu ne ñoom ñoo ko def ngir xër ci li nga xam ne mhm. Mhm. moom laa def ak moom laa bind euh, muy euh, euh, biñ la ko joxee ci école commerce bu Lyon waaw université ba nag ñoo ma oo ñoo ma bind xaw ma leen musu musumaa dem Lyon avant loolu muy exception ci biir exception waaw waaw loolu la musumaa dem Lyon damaa toog wala defal la ko damaa toog rek jot lettre bi. mais loolu doyul waar loolu yéemewul. xam nga loolu amul lu ma ci wax man li ma la wax ni mu demee rek jeex na noonu la demee mais yeneen université fi mu ne ni ñu mooy proposé lu demee noonu. a ah, est-ce que amoo ñuy liggéey ci ginnaaw genre ay lobby yoo xam ne. man ah. man soxla wu ma la benn moo wax ak yow bu nga ooma. kenn. Ah, jeex na sa liggéey nga doon dem ba gis ne am nga liste boo xam ne war naa caa mën a bokk. Euh, ñu ñëw ci fi nga toll woon euh, ci euh, maanaam waxin. Hmm. borom xam-xam yi peegoon nañu xam-xam. Hmm. ci réew mi muy mag ñi fi newoon waaye jàpp naa ne nii ngay jàngale ñoom jàngale woon noonu. te jàpp naa ne téere ñoo yër man boo tax ñuy def éducation di ko def ndax ñoo ko war a def. éducation sexuelle. loo bëgg a wax foofu. mooy li nga dégg rek éducation sexuelle. li li ne ci luñ mën a jàngale lépp tànnoo ci lu éducation sexuelle. dama ne ci xam mais xam la xam nga wala xamoo ne xam-xam la. xam-xam la. ok waaye as tuut la. ci xam damaa bëgg dañ ko war a jàngale sëriñ si dañ ko war a jàngale ñun ñi ñu jàngal suñu mag ñi dañ ko doon jàngale. gis loo keroog fii sama mbokk mu sant si ci Tiwaawan mi ngi koy wax di wan ne boo génne bu génne ci nit ki bu génne ci wana wi nu muy euh, raxasee kéem ak nu muy dindee ay. yu taq ci moom yooyu mi ngi koy wane am ñuy ree mooy leen wax waxuma ko pour ñu ree xam-xam la. Euh, ñu seetaan benn élément dellusiwaat ak sunu invité di Ahmad Ba euh, Ahmad Khalifa Niass. ñu bari dañ ko xamul xamuñ xam-xamam moom léeg-léeg mu wax sax ñi ñuy diingat ko fekk day nëbbu boppam rek man maa mën a wax loolu man jabaram fekk day nëbbu boppam léeg-léeg ñi ñuy wax ci moom nañ def ndànk ndax am na xam-xam yaayam shérif la baayam wàlliwu la. léeg-léeg nag mu wax nii ñi naan ah sëriñ bi dafa rëccal dafa dee day nëbbu boppam rek ndax fii ku gaaw a feeñ dem rakkam jaa nga ne Sidi Lamine ñu ngi koy jooy ba tey yàlla na ko yàlla xaaree àjjana Sidi Lamine maa ko yar li mu nekk étudiant yëpp sama kër la nekk li muy takk jabar Ahmedoy takk man maay solol or may solal jaar mu nekk rakkam bu ko déggal mu fayal ko mu jàng keer mook rakkam ji wax salmañes maa leen yar ñoom ñëpp sama kër lañ nekkoon ñëw sama kër ne dootuñ ñibbi xam nga nit ñi ñu bàyyi ndax Sidi Lamine Ahmed doo ko jàngal Ahmed doo ko jëlee ca tool ya ñëw yóbbu ko ne ko yow doo bay moom dafa demoon jàngi ñëw ñu naan Sidi Lamine ñu ne ma ca tool ya di bayal alaaji sëtu mu jël jakarta la jël dem ca tool ya fekk ko mi ngi bay di saaw mu ne ko Sidi loo fi def mu ne ko damay bay mu ne ko yow bay du sa wàll doomu Aminatu Aminatu Ñas di sëtu rasululaay doo bayal sa benn doom baay yëgal ci kii bi mu ne ko li may sama jigu nu ma koy def mu ne ko bàyyi ko ci tool bi teg ko ci moto ñëw ba kaw la defaral ko mu jàngi Égypte lépp muy fay mook rakkam salma muy kàddu yoo xamee ne maanaam daf ñu yóbbu ci feneen euh, dañu seetlu jamono ji baatub siidi ku ko tudd ci sa kanam nga mel na lu tàggoog sa sago lu tax. waaw oh, déedéet du ma tàggoog sama sago sax waaye xam nga amuloo ku muy kenn rek koo bokk na rek bàyyi ay nit def lu ne pour yàqal ko te nuñ koo yàqal te lu tàggawuñu tàggalewuñu la ak moom tàggale bi nag maanaam day am ay période rek mais moom. ci mujj dundam jël na doom yëpp indil ma leen xam nañ ko du dëgg euh, tolloon na jamono bi mu nekk riir Rafenel euh, ñu dañ ko nommé ambassadeur en Iran ba mu jot lettre de créance ba xam bés bi mu war a dem Téhéran euh, am lu ko dab. am lu ko dab. waaw lu ko dab. c'est-à-dire. am lu ko dab daal aal aal benn aal bu mag dab ko ba ba léegi demul demul pour nekki ambassadeur boobu Walfadjri eh, kii la woon sax mensuel nekk fii Rue Raffenel ci wetu Doudou Ndoye bi loolu amee yëf metti métti ka mu ñëw ne ma jëlal sa rakk nga téye ko bëgguñ mu ñëw fii yàq suñu liggéey tolluwaay la woon. waaw tolluwaay la ñu ñu ñu ñu ñu jox ma ko mu yóbbu ko ñàgg tey ko fa ab diir ba loolu lépp dañ. kon dañ ko jekkoon nga bëgg a wax. wax ma dama ne rek amoon na àll bu mag bu mu nekkoon. Mhm. xam nga ku dee ñu jébbalu say bokk ku feebar ñu jox la say bokk. Mhm. def naa ca ba yàlla may ma ca ba mu delluwaat ba journal boobu jógee ci hebdomadaire. ci ci loolu nekk hebdomadaire ba bu mu nekkee quotidien ba jur rajo ba rajo bi jul télévision ba mu nekk benn groupe de presse yaa ngi dégg. Mhm. loolu la moom nag euh, aal boobu léeg-léeg leer la goo xam ne bu ñëwee daf koy ëpp doole ëpp na ko doole léeg-léeg mu jël mayam journaliste am nga ñëw ne salaamaaleykum mooy la demal ci kees gi ñu fay la dàq la. kon da ngaa bëgg a wax ne du tayef. defal rek dégg nga dama lay wax aal aal laa wax yow yaa wax affaire aal laay wax man aal boobu li jógee li li jógee wal fajri cent sans cause ay dizaine de personnes lañ ci ay at yu bokkul ci ay nit ñu bokkul ay góor ak jigéen. boobu mais booba foo newoon dama lay wax pour que nga xam ne. yow mi magam foo newoon booba. waaw man mi magam maa ngi fi mais. léegi xanaa booba jógoo bi jóg jotee. déedéet léeg-léeg aal bi ci boppam. man man du ma accepté wala même Salma xam nga mën a joteeg man te du joteeg Salma wala doomi Salma wala sama doom yu. est-ce que bëggoo justifier réeroo gi amoon kon sa diggante ak Sidi tey man aw ma lu justifier. amoo regret. aw dama aw ma lu man. parce que da nga jàpp ne kon tay du doon tayef sur li amoon. dama ne euh, kër sëriñ si aal bëri na fi de. waaw yow yaa ko xamul rek. nga xam aal waaw aal bëri na fi aal. borom àll la même waa ka doom yi sax dañu ne léegi àll bi ñëw nañ xam na loolu ñoom xam nañ ko. mais booba foo newoon. dama ne la man daal je suis avec ma conscience Sidi Lamine bi ma mujjee wax ci moom ak bi muy génn ay semaines yu néew la. kañ nga mujj toog ak moom. bi ñuy bi mujjee wax téléphone daal. noo toog téléphone nga. <coughs> waaw dama ne bi ñu mujjee wax téléphone parce que mujj mujj toog bi euh, mais wax bi ñu mujjee wax téléphone. Mhm. ak muy génn àddina motul ñaari weer te booba dafa nekkoon umra kii moo ma téléphoné maître Amadou sàll bu PDS ni ma léegi laa doon wax ak sa rakk Sidi Lamine ci article bi nga bind ci affaire Makka ak Bakka bii article bii rek moo ñu fayul bii article rek moo def li ñu bëgg mu raccroché mu sone mu ne maa ngi ni Medina doon wax ak Amadou sàll ci sa kii bi moom Sidi ci boppam. waaw waaw bien sûr ci li nga bind. te booba gëjoon ngeen a déggante. waaw danañu gëj a déggante danañ tol too xam loo xam ne itam danañu joxe ay gise ay yoon ci bés. tool tool na jamono it même day damay bind article jox ko ko mu signé génne ko kom mais téléphone boobu xanaa neexoon na sa xol de keroog. ah c' est normal yow itam. ah normal que mu nekk lool xam nga lu lu yenu maana la pour mu normal. kon bu ma la déggee mooy amoo benn regret. tey ci li jotax na xew. amul de de regret mooy regretté regretté naa loolu ak demam ndax wéetal na ma mais laataa dem gi yàlla ko yàlla yërëm am na lu ko jiitu woon taxawaay bi. ñaar ñu bokk ndey ak bu ñu waxee nga ne amoo kudut moom moom amul kudut yow ak Salma. waaw loolu am na. mais yàlla xeer jugee fii ñëw fii xeer jugee fii. d'accord loolu danay am. kon yow pour yow c'est normal. dama ne danay am rek danay am danay am dama ne la loolu danay am maanaam diggante. xam nga danaa joxe toujours exemple la yonent yàlla Moussa yonent la yonent yàlla Aruna yonent la te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay te dañoo jote ba alxuraan di ko wax ba euh, kii naan ko. mais nag war ngaa xam ne ñun duñu yonent yi nag. de defoon na waaye yonent ñooy suñu roy waaye jóob. waaye taxul ñu doon ko. waaye dañ ko leen a waroo ba ñàkk koo doon boo ko doonul doon wàllu yu boo ko mooy mais dañ leen waroo dañ jéem a nekk yonent. Euh, ndax jàpp nga ne. Hmm? Euh, tey taxawaay bii nga taxaw hmm. jël siidi. ne Kaolack lañ koy denc. ba ñëpp taxaw ci njabootam taxaw nga lem seen loxo yóbbu ko kawlax denc ko fa. ak ndénkaana yi mu waxoon te nga xam ci alxuraan ndénkaana yu mujj na mu demee nga def loolu ba pare ne boo génnee àdduna na yéex na yóbbu yaatu dénkaanewul leen dañ ko def yoof loolu man maa toog cheikh ngi nii sama doom sama jarbaat ma dugg moom ci néeg ma ne ko sii di sama rak daf la denk ne bu kee nañ ko def yoof mu ne ma déedéet ma ne ko tax nga ko def yow ne ma damaa bëgg ma jógee pare ak samay copain au lieu ñu dem kawlax du dafa sori te tàng ñu mën ko ziyaare fii rek dellu lii la moo wax waaye du dénkaaneem de. kon looloo tax nangu woo. waaw du loolu rek dama amoon information ndax xaw bul fàtte ne boobu campagne bu soreetul bi ñu yégee am na kii am na njabarkat yoo xam ne dañoo wax ne nañ leen indil cër yu bokk ci ñoom. li nga wax doy na waar de. waaw te nga maa déglu wala nga wax sama place boog lii laal la Diop. noppi naa waaw kay. dégg nga ñu ne bi ma jotee information yi te loolu xam nga bés bu ne mu am bés bu ne nga jàng ci journal dégg ci rajo gis ci télévision gis ne armeel yi nit ñi dañ fay dem di jël cëri nit ñi tous les jours que j'ai fait mu am Pikine euh, feneen feneen. Euh, yoo mais nit ñi foofu ci Sidi. waa waa déglu tuuti itam sëriñ bi xam nga ñoom mën nañ koo yóbbu suul ko yoof waaye ñaay ñay jaaree ca gannaaw dem ca bàmmeel ba loolu ñoo ñoom mënuñ koo contrôler armée yi ni mu toll benn gardien mënu koo contrôler te côté bu la neex yéeg armée Dakar wi. kon looloo tax nga changé. dama loolu bokk na ci. Mhm. benn bi taawam. Mhm. daf ma ne sama bu dee am naa ci kàddu. yóbbu leen ko ci baayam ndeyam ak baayam ak magam fañ ne ca kawlax taaw nga xam ne mooy magi Cheikh dégg nga numéro 2 ma am information yooyu numéro 3 famille bi yëpp daje na baay ak Niassène def benn baat ñaari xalifa yëpp oo ma ne ma indil ñu suñu rakk fii yow lañ ko chargé ñu ngi lay déglu. Euh, ñuy ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin sa doom Cheikh gëj nga koo gis. waaw. man moo koy gis sax. xanaa mujj gis ba ba ko fa bàyyam indi laa ko laa ko gis ci jël na kooki rakkam yëpp indi fa boobu laa ko gis. est-ce que xam nga ne yaa war a taxaw taxawaayu baay. maa fi taxawit dañ la ko nangulul ñoom. ah loolu ci lu leer. ñu seetaan benn élément boo xamee ne. dañuy dellusiwaat ak kii suñu gan tey di am mbégte nag ci nangu gëm ñu nangul tey sunu waxtaan wi di Ahmed xalifa Niass. bu baax a baax la boo xam ne ñuy séddalee mbaax dina ci am cër te ki nga xam ne bàyyi la ci moom di maam ci man muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ca Angleterre ci ay fanam yu mujj wax na Imam Hassan ne ko ku ma bëgg la waaw te loolu seede gënu ko rëy ndax bàyyi seede ko ñu bari. am na ñoo xam ne sax ñu ci wetam séddale leen kon su ko séddalee loolu ñun war nañoo taxaw ci loolu bëgg ko ñun tam ngir bàyyi moom bëgg ko itam ngir jikko boppam ndax nit danañ la bëggu ngir sa wayjur waaye buñ la bëggee ngir sa wayjur ba mu yàggee ñu gis ci yow jikko yoo xam ne moom lañ la bëggee loolu mooy li gën a wér mooy li gën a dëggal moom nag boo jaxasoo moom da ko bëgg te moom mii may seedeel tey nii. baax na ci doomu aadama yi baax na ci ay jegeñaaleem baax na ci waa kër baayam baax na ci waa kër yaayam baax na ci ay mbokki baayam baax na ci ay mbokki yaayam mbaax gi lépp lu ko lim ndax lu bari la loo xam ne ku nekk rek mën na cee teg baaraamam ndax def na ci def ci def ci def ci ba sonn te ba léegi bàyyiwut bàyyi dafa wax ne ku ndaw ki bugg ku mag ki mooy jëriñ ku ndaw mooy jëriñ ku ndaw ki bàyyi mën na laa bëgg waaye yow nag nga bëgg ko ba mu seede ko njëriñ yëpp foofu la nekk te bàyyi seedal na ko kon gërëm na ko yàlla guddal fanam te fay ko xolam dimbaleel ko boppam defal ko barke ci njabootam fi mu taxaw ay mbokkam itam yàlla taxaw fa njabootam yëpp gutu ko fa ci dundam damay ko dund bu gudd gudd gudd euh, muy kenn koo xamee dafa yëkkati di imaam ñu koy gërëm donte jotam mayu ko waaye nangul nañu tey lii ñu ko ciy gërëm bu baax di boroom xam-xam di ko àdduna jox cër yëkkati yi kàddu yi seede ci yow. waaw kii sama jarbaat la yaayam mooy sama mag ndax yaayam mooy magu baay mooy taawu baay Ñas mu ngi fi ko yàlla yàggal. muy mu mu mu remplacer itam imaam Xasan Cissé maa xam ne. Mhm. maa ngi moom ñoom daan ànd ba dee tàgg ñu tey muy taxaw di jiite fa bay daan jiite. Euh, dañ la daan gis ngay dem bitim réew. Mm. Euh, sa diggante ak bitim réew maanaam kooma amatul nga toog am lu xew. ndax la ah fu ñu mosaan dégg ñu dañ la daan dégg Iran fu ne la fay dégg ci àdduna bi. fu ma daan dem rek maa ngi fay dem. maanaam coow la àndaloon moom la àndatul. xëy na bula la neexee. wàññi wàññi naa nag samay activité muy ci biir réew mi muy ci biti réew mi. waaw xanaa li la daan woye homme d'affaires nekkatoo ko léegi. li ma nekk mag. dama am cent treize ans léeg-léeg am am ku ñëw téléphoné wala mu ñëw wala mu bind ma ne ma dama ñëw pour proposer la affaire ma ne la man defatuma affaire léegi seetal sama doom yi boo waxee côté bi nga bëgg ci affaire yi ma seet sama doom ba nga xam ne moom mooy yëngatu ci côté boobu ma boolee la moom mm. ndax ab di ma am ko ko am wax dëgg yàlla di nuyee affaire wàcc na la <coughs> Euh, euh, ñu daan gis sa diggante a xaddaafi bi muy dund foo dig nga koy tiitaroo di ko ndamoo ñu jekki-jekki mu génn àdduna mu mel ne kenn déggatu la nga wax waxi xaddaafi lu xew déet am fi njaboot dama ne njabootam njabootam maa ngi defanteeg ñoom am na njabootam goo xam ne sax sama kër lañ dëkk ca Mauritanie Ahmad Khalifa Niass milliardaire am na am na ñey wax rek waaw am na yow milliardaire nga milliard milliard bari na sama góor gi milliardaire. waaw milliardaire ngay gis ñoo xamee ne ak jafe-jafe yi ñuy dund néew doole nga dundoon loolu lu ci sa taxawaay. sëriñ bi nit ñu bëree ngi lekk bés bu ne mu jaare sama loxo ni ko ñii waxee man li ma am dama koy bokk nit ñi fi mu ne nii boo demoon tey fekk rey nañ nag di ko togg di ko joxe bëri na ay kër non seulement Sénégal ak bitim réew yoo xam ne bés bu ne. danañ jot loo xam ne ci man la jógee ci li ñuy dund ñii ci la ñuy fay lu yaas ñii ci la ñuy faju ñii ci oto yu ñu daw la ñii ci li ñuy dem màkka la bari na mais man damay am kersa sax pour wax ko parce que waxuma ko pour ñu xam ko bëgguma ñu xam mais gars yi nag nee nañ ñu nga daan yóbbu màkka moom bu njëkk dañ ko daan dégg lim bu bari la demoon sax ba daan wàccee avion ca kaw la duy ci nit ñi ba ñu fees yóbbu leen waaye nag daa mel ne kon moom léegi doole doole néew na nag kon papa déet maanaam doole ji ma ko doon defee de wax dëgg yàlla tey la fi ëpp te loolu sant yàlla laa ko waxee waaye nag bu njëkk ñi ma waroon a yóbbu bari. ngay jël avion waaw waaw déglu rek boo déglee da nga comprendre man dama fi ñëw pour wax waaye boo waxee à ma place rek ñiy déglu duñ dégg dara. bu njëkkoon. bu njëkk ñi ma bëgg a waroon boobu dafa bari parce que dama doon yóbbu soxna yoo xam ne samay ndey lañ ñook sama yaay ñoo doon wujjee. te bu ma gaawul ñu dee te seen mébét la pour ñu dee màkk am ay ñoo xam ne sama njabooti baay lañ ay sama samay mag samay euh, muqadday baay yu mag yooyu yëpp bu ma leen buggee yóbbu ma ko def par benn par ñaar par ñett kon lu néew ñëw ci dem ñu seen ñëpp dañuy dee ma yóbbu par deux cent personnes par cent personnes par cent cinquante personnes année bu ne ma yóbbu la ma mën ak la ma am mais léegi dem naa ba ñi ma bëggoon a yóbbu ñëpp dem nañ sama yaay laa tàmbale léegi amatuma koo xam ne loolu war na ma ma yóbbu ko màkk mm-hmm. ba tey nag at mu ne ma am ñu ma yóbbu mais limba du bari parce que ay ay. Euh, demeetul nam demee woon. waaw parce que demande bi amatul maanaam boobu man ñi nga xam ne bëggoon naa leen a yóbbu yëpp yóbbu naa leen. Mm-hmm. yóbbu naa mille cinquante personnes. Euh, sa diggante ak kilifay diina yi fi ne. Mm. sëñ taxa mi xalif général de Mourides. Mm. ci laay njëkkee. waaw kooku moom ñëpp xam nañ ko yaa ma gën a xam sama diggante ak kilifa diine yi fi ne. Mhm. ñuy samay mbokk di samay xarit wax dëgg yàlla lu ñëpp xam na du lu nëbbatu waaw du nëbbatu sëñ Mountakha moomu euh, doomu sëriñ Bassirou la ma daan ànd ak magam mu ñuy wax sëriñ Moussa. Mhm. moom mooy bàyyu euh, Babacar mu ñuy wax mu kabaru mu kabaru Babacar moomu ak son Babacar mu ñoo bokk kuñ leen kuñ ko leen tudde dégg nga sëñ si waaw dégg nga léegi euh, keroog bi nga xamee ne doomi sëriñ Babacar si nelaw na fii ci zaawiye bi ñu jógee teewaan sax maa leen fa njëkk maa leen fa njëkk ndax dama dañoo dëkkoon ri googu tam daan ñëw sama kër te muy nit ku baax di wàllu yàlla bu wóor kon daal relation yu rafet macha allah kunte kunte yi noonu taal yi man ci foofu laay jullee jumaa euh, ñu jékki tey dégg nañ la euh, rafetlu ko nga yëkkati kàddu ci dialogue bi. Mm-hmm. réew mi. Mm-hmm. fi mu toll. Mm-hmm. daa mel ne nag jot na dialogue. ci nga jóge nii. ban message nga ciy wax. mooy li ma wax Macky Sall rek nee naa ko. affaire dialogue dafa am ñu log ak ñu logul te ñu log. mënuñoo waxtaan ak ñu logul te logaluñ leen. kon daa war a logal gaa yi. waaw du logal bi nga foog nag maanaam jënd leen wala leneen déedéet maanaam tey def nañ élection. Mhm. xam nañ kan mooy chef de la majorité. Mhm. du xam nañ kan mooy chef de la mhm. majorité présidentielle. mais lu tax xamuñ kan mooy chef de l' opposition. fa la war a àgg. waaw loolu ñoom war nañ ko log xam ne chef de l' opposition ngi nii ci misaal. bari financement des partis loolu yëpp ci log yi la bokk. kon daal lo bu bu bu logalee gars yi moom. waaw dama ne log moom. ku logoo ku logul seen waxtaan du neex. ñu gis nga tudd doom ci téléphone. tur wa wér na. Ah, man nga koo layal. waaw xam nga tudd mooy lan. moo tax ma ne ndax mën nga koo est-ce que xam nga ñuy tuddee. moo tax ma ne la ndax mën nga koo layal. dama ne du layal dama ne est-ce que dafa am na ñuy tuddee tudd lu simple la. Mhm. ni ko bu juddoo. nodd da nga ko war waaw noddu ci ndeyjooram. Mm-hmm. liqaam. ci càmmoñam. Mm-hmm. te boo ko defee ci téléphone biir ça a le même effet ndax ci téléphone bi nga nodd rek moom dana ko dégg boo ci liqaamee dana ko dégg comme boo ko tiimoon rek même chose amul benn différence njëkkuma ko def ci biir passé def naa ko ay yoon yoon yàgg def naa ko ñoo xam ne fi nii ngi dox seen soxla. da ngay nuyu jigéen. waaw. araamul. déedéet da nga koo daganal. dogal lu araamul sax ko daganal lu araam la ñuy daganal waaye lu araamul araamul euh, tey ñu gis yaa kenn koo xamee ne am nañu mbégte ndax liñ naan deere kay dëgg ñu gis ne keroog saafonte ngeen image bu ñu marqué la muy iyaan caam ngeen bokkoon lu ne demb ak barki démb ngeen féen ca xam waaye ñu gis ngeen daje waxtaan kon yow dafay wane ne doo jàppal nit dara déedéet te moom ñi nga mboolem réew mi ca yaat moom moom moom laa ci gën a jege ñu ne fi mu ne nii du jóg suma kër waxtu wu ne ñu ngi wax wax jooje ba mu amee ca kii ba ca ngoon sax sax wax nañ barkit maanaam bu ma ñëwee foofu damay yendu këram damay damay yendu këram ca Fuuta kon kon yéen seen xuloo ku ci dugg machine. waaw ku ci mujj des ci. sama euh, diggante ak sama diggante ak Sidi Lamine amul ak Sidi Lamine amul différence. ñu euh, euh, yi la nga tàggoo tey boo amoon kàddoo yooyu tàggoo yan kàddu lay doon. na ñu cër la woon ci wàllu waxtu ji. damay wax ne. Mhm. dafa am mafia buy utiliser l'islam ci réew mi mafia bi ñaari groupe yu bokkul benn bi mooy ñoo ne xamuñu dara ci diine waaye dañuy dégg ñuy wax la nga xam ne kajoor ak bawar rafetlu nañ ko muy aaday wolof ñëwal ba di ko def ne loolu mooy l'islam te loolu du l'islam maa koy moytuloo nii ñi nañuy seetlu buñ yaakaar ne yonent bi dëkkul kajoor dëkkul bawal ay aadaam du aadaay kajoor ak bawal ñaareel ba dafa am beneen mafia boo xam ne wax ci diine ji ci lañuy añ di ci reer di ci ndékki di ci takk jabar di ci ami oto di ci aji màkka di ci faju di ci def lu ne. mais loolu kay ko ko mën am ci diine sant yàlla. waaw d'accord dañ koy def te fekk diine ji xamuñ ko dañuy jaay dañuy jaay dañuy wane ne am nañ xam-xam ci diine pour ñu di leen ci jox waaye ñoom dañuy jëfandikoo diine tax xamuñu diine waaye dañ ci utee lu ñu am di ci defee ay ay jeu d'influence. Euh, RTS am nañu mbégte ci yow. ci nangul gi nga ñu ko nangul. ci suñu may am naa mbégte ci yéen ak ci yow ak sa émission. émission la boo xam ne yàgg naa ko apprécier <coughs> yàgg naa la sax bëgg a xam mais tey la ko yàlla dogal yow yaa ko wut. jërëjëf ñoo ngi lay sant di leen gërëm jërëjëf sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan ñu àndoon ak uh, kii di Ahmad Khalifa Niass di ko gërëm di rafetlu teewaayam ci biir émission bi di gërëm ñu àndoon ak ñun di leen jox dig daje ci beneen yoon jërëjëf baraama sa mbub mi nga sol bokkul ak mooma sa mbub mi nga sol bokkul ak mooma mooma gën naa weex weex bàyyi moom nga solaanatam daaw jeeg baraama si di baraama man de joxoñ naa la sama baaraam kon man de joxoñ naa la sama baaraam xamoon naa la faas xamoon naa la ay na mbar de seydi baraama laa ilaaha illallah lëndëm ci kaw lëndëm tërisoo baraama xaw nañoo dee ci reer yaa ñu xëddoon yaa ñu xiddiwaat baraama